ngir vous a mën a à ay vidéo chaîne YouTube bu Caaroy info TV nga daal di cloche notification

2022 lañu ñu ba ñi ngi dugg ci at bu bees donc li ñuy wax dal moy tay mbebet yu ñu amone amna li nga xamné yalla commencé ni ci jappalé ak équipe bi yépp ñi nga andal di ci liggéey mais dañoo japp ni tey defaguñ dara Caaroy ñun loolu lañ jappagum parce que ambition bu am Caaroy moy tey Caaroy bokku ci ville yi gëna rafet bokku ci ville yi gëna set dans le département de Pikine et dans la région de Dakar loolu nag ñu ngi siy taxaw ñu ngi siy liggéey te vraiment am si yaakaar ni juróomi at yi ñu si def dina am lu bëri loo xam ne dinañ ko si dinañ ko si réaliser. luñ mën a réaliser gum si un an mun nañ ko tënk si véritablement li nga xam ni comme doléance li nga xam ne dafa nekk si ay veille doléance population Thiaroye yi veille doléance population Thiaroye moo nekkoon jël taxi Thiaroye laa jëm mu ne du ma fa egg.

liñ ñu def moy dem talal loxo président Macky Sall pour ñu jàppale ñu si lool lool nak yalla jappalé nañ ci ba tay caaro yi mën nañ ni mën nga fay dugg si commune bi yépp do gis tay fi nga xamni tay li nga doon gis demb si at bi bo duggé di nga gis ni changement amna ci si tali deuxième bi nga xamni ñu ngi ci dox moy walum assainissement lool nak mënu ci si avancer mais amna lu bari li nga xamni ñu ngi ci waxtaan ak wa

mais gëm nañ ñi ñi ngi def ay jéego yoo xam ne population yi ñu ngi siy gis seen bopp. d'habitude je l'ai toujours dit par rapport à ce qui se passe à l'Assemblée nationale et ailleurs Ce que je veux dire, c'est des questions que nga xam ni Je am fu ko yóbbu man bo demee nga xor sama page Facebook wala nga xor interpellation yu mi sur la question qui concerne Ousmane Sonko ak euh, comment il s'appelle encore Adji Sarr musuma see prononcer parce que dama gëm ni ñaar nit yu am problème buñ démé demee dikkal mëna mën nañ ñu lijjanti ko mais malheureusement c'est des questions yi nga xamni dañ koy jël politiser ko donc c'est par rapport à aussi ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale dëkk bi ñun ñëpp ñoo ko bokk ñun ñëpp ño bokk Sénégal coow li mën bëri mais Sénégal gëm na du mësa tak lool nak vraiment lu ñuy wo Sénégalais ñu am plus de maturité am plus véritablement de de de de faire preuve et œuvre de dépassement xamni ni dëkk bi ñu ñoo ko

Aujourd'hui, ce aw conseil municipal moo xam assemblée rek c'est des politiques qui nga vraiment ku nekk pour défendre sa position avec énergétique des fois il mu am des débordements Les débordements sont les la parce que gëm nañ ni les élus du peuple ils ne dem pas fa représenter peuple bi donc ku peut défendre

lépp mooy ñii la jiital ñi nga dëkkal say dëkkandoo am si yow collectif jox la Macky Sall le président Macky Sall daf ñu recevoir dans la salle on était à peu près 500 personnes sur les 500 personnes y avait que 6 maires yàlla bu la joxee cër boobu nga toog président woote moom ñii moo leen dama ay ministre ñii moo leen dama ay directeur général nga ñëw toog salle bi fees dell cinq maires kese nekk si bi loolu bu la doy gisuma leen lu looy doy. Macky Sall président Macky Sall ba muy démarrer ku ko waxoon di nga nekk président mun la déet ñun Nous, tek teg suñu tànk xam nañ ko ñu ngi siy dem sûrement lentement mais avec conviction man lool la xam vraiment si lo xam ni aw ma difficulté par rapport ak limay muy liggéey parce que je suis fonctionnaire je suis au ministère de l'économie du plan et de la coopération mën naa ne politicien parce que Macky Sall tey mu dem ak mu ñàkk dem je vais continuer à travailler pour ce pays donc vraiment pour man. affaire de nomination kenn du ko mës a dégg sama lame ma ngaa ko parce que du li nga xam ni ba may dugg si politique dama signé contrat ne ma koy def mais gëm naa ni lii ma waa Thiaré jox mooy lu xam ni nit mënu ko am mooy lu gën a lu mooy lu lu lu loo xam ni moom moo ma gënal si lépp sama àdduna donc loolu daal vraiment loolu laa bëggoon di leeral si question boobu. profiter de cette année rek vraiment souhaiter mes meilleurs de bonheur mes meilleurs de santé de proximité de prospérité de réussite aux populations de Tiaray, particulièrement les jeunes et les femmes donc collectif de 10. donc si vous ak say nous avons am collectif fal la ñu xaar ñun ñu ngi résultat de ñu xaar nous ñun

tey li amul woon caaroy di pavage dina fi am li amul woon caaroy début assainissement dina fi am mais loolu nag dañoo fal pour juróomi at te gëm nañ juróomi at yi mandaa bi ñu jox ak engagement yi ñu jël bu soowee sunu borom dinañ ko dinañ ko matale di gërëm nag vraiment population Thiaré bi yëpp di leen sant si collectif bi di leen si si si si jappale bi di len sante aussi si ñaani yi gis nañ taxawaay yi gis nañ vraiment ñaani yi gis nañ aussi accompagnement bi ko lol da an la amoon len wax di len vraiment souhaiter une très bonne et heureuse année 2023. ngir gëna mëna jot ay vidéo xibar abonnel ci chaîne YouTube bu jaaro info TV nga daal di bës li nga xamni mo di cloche bi ngir mëna jot yoy les notifications